demaat nañ fañ nekkoon te max seere na la pataake bi nga jéeri jox arbitre daw na def na déplacement xoolal di ñuy defee ay déplacement xoolal arbitre yi rek xoolal arbitre yi rek arbitre yi dañoo am ay technique yi attention brise mi ngi song ñaari avertissement la am moo tax muy song e seere na waat la pataaka bi seere na ko tey nga dee seere na ko tey mu dóor la nga wàcc brise mer mooy tu mu dóor la nga wàcc de T-Max lool rek la bëgg naa as nga xam nga ne T-Max dóor mu daan la bëgg xoolal mi ngi seerewaat la pataake wuy sam manday mi ngi koy seerewaat wuy sam manday seere na ko wuy sam manday tey mu gaañ ko ki doomu jàmbur la de baay li ngay def bàyyi li ngay def la pataake dafa dijj sax dana ko dóor Brise mer aj na garde bi ajal say garde da ngaa gàtt Brise T-Max T-Max euh, mi ngi taxaw di ko déglu léegi xam na ne léegi Brise sa Mer moo war a jël ay initiative day aj gardam di ko déglu di ko xool lan lay def mu juumloo ko seere na waat la pataake bi wuy yaay bu ko seere rek sama yaram day daw Seydina bu seere laa pataake bi rek sama yaram day daw dafa mel man la ñuy waaj a dóor <laughs> wuy sàmma dana ko gaañ lii xale yi di wax wuy sàmma wuy sàmma sànni na droite seere na ko waat wuy sama wuy sàmma xale yi ñooy wax loolu wuy sama wuy sama seere na ko waat wuy sama wuy sama ndey <laughs> moom day seere te du dóor <laughs> day seere te bu dóoree si loxo yi lay dal si loxo brise mer jéeri jàngalal kii dóor bu amee lappataake mbër bu amee lappataake day jàng dóor waaye am lappataake di nga seere di dóor si loxo jàmbur doo dóor ci kanam si mâchoire attention wala nga dóor ko fi muy lekkee yu guy gi xoola seere na waat seere na waat wuy sama wuy sama yi xale yi wuy sama wuy sama <laughs> wuy sama wala moom de xoolal day dóor si ngelaw gi lay dóor eh eh eh si ngelaw gi lay dóor seere na ko waat da nga waroon a sa yaram avertissement encore ñetti avertissement ñaari avertissement lay nekk arbitre woo na leen ci digg géew bi waaw deuxième avertissement troisième avertissement pour Brise de Mer commencé nañ ko dagg commencé nañ ko dagg dama koy dagg doo ko dagg <laughs> ñu ngi leew doo waat sëy naa xam nga dama koy eh, eh, waaw seereel ñu ngi leew doowaat xeex xeex sëy naa xeex xeex xeex ofal ofal arbitre ofal na léegi Brise mooy jël ay initiative mooy jël ma seere ma ngay seere wuy sama wuy sama wuy sama wuy sama dóor mu waaj wuy sama dóor mu waaj wuy sama wuy sama wuy sama wuy sama wuy sama jël na ko jël na ko ay rëpp na rëpp na mooy yéen mooy yéen mooy yéen jeex na jeex na jeex na jeex na jeex na bàyyil sama yaram may daw maa ngi mel ni kuy bëre waa ji si air bi rek day seere ba pare di dóor si air gisee rek si gaaw gi ngay nag tey dama mel ni kuy bëre tey sama xattal yi la sama mbankaana yi la yi nekk fii tey sama ndomba ndigg yi la. Eh, déet déet déet déet leen déet ne déet temps jeex na repos partez. attention Brise de Mer mi ngi song mi ngi jël ay initiative man tànk day joor te max bi moo ma jaaxal tànku droite bi muy sexal te Brise ñemewu ko sex man looloo ma jaaxal ñu ngi leew toowaat ñoom ñaar Brise de Mer boo jël ay initiative moo am trois avertissement tànk bi commencé na sàcc na tànk ba waaye sàcc ba baaxul sàccee wuub mooy na mooy na sàcc ba mooy na sàcc ba mooy na yomb naa jàpp mais mbaru jéeri mii nii mbaru jéeri bii lëf la de Aseyna mbaru jéeri mii lëf la de attention jël na ko waa baaxul baaxul tee max dafa diis plaquage bi baaxul door mu daanu door na ko mu dal wis sama wis sama wis sama sëy na <laughs> wis sama door na ko mu dal wee pep pep pep pep door na te max mbaru jéeri dem na Ardo wis sama wis sama wis sama wis sama dem na Ardo wee bépp ba ngantaan bi dóor na mbaru jéeri jéeri jéeri jéeri jéeri lii du yoon jéeri lii du yoon arbitre sifflé na seetal li ngay seet bàyyi attention attention à T-Max mbaru jéeri attention Brise de Mer moo jël ay initiative léegi T-Max dóor na ko te max dóor na mu dal te max dóor na mu dal ci loxo yi attention Brise Mer qui avance à petit ko gauche laay lay la laa eh sàcc na tànk ba waxoon naa tànk boobu noonu muy bàyyi takk na ko wër na ko ndomba tooj toojooy tooj tooj ni ko laay eh, lay la belle rotation laa ilaha illallah awaay ah tey max oh jéeri kontaan nañ ci sa mbër bi oui pep pep pep pep pep Sall kontaan na lii moom boo koy def kenn du tëj làmb ji kenn du tëj làmb ji oui pep pep pep pep wuy sama wuy sama arbitre bi sifflé waat naa ku nekk am nga ñetti avertissement jox nañ léegi mbëru jéeri te max benn avertissement ñu ngi lay toowaat ñoom ñaar ku nekk ñetti avertissement ku nekk am nga ñett te max ak euh, brise de mer numéro 2 ñu ngi leew toowaat tànk ndeyjoor contre tànk ndeyjoor droite contre droite attention balancement de bras tey max dem na faju ji ba ñëw tey max dem na demi flexion tànk ba tànk ba tànk ba tànk ba da nga koy sexal da ngay sexal day sexal ngàttaan brise mer mépp na ñu ngi bëri ñoom ñaar ay ndaanaan lañu tey ñëpp kontaan nañu ah eh, eh, door na ko gauche droite droite gauche eh waa yow lii la lii la da daanu. daanu jël la jël na la xeex këpp na këpp na këpp na wuy sama wuy sama for ko gaaw wuy yaayooy wee pep pep pep pep daan na ko kawote na ko il a kawote ce jeune champion Brise de Mer qui met KO t mbaru jéeri oh jéeri wuy sama wuy sama wuy sama wuy sama wuy sama wuy sama waa yow ma ngay njub wee pep pep pep pep pep policier yaa ngi leen di génne dafa kontaan ndeysaan dafa kontaan ndeysaan ndeysaan ndeysaan ah waa ndeysaan ndeysaan ndeysaan ndeysaan xoolal ma lii Seydina ndeysaan ndeysaan ndeysaan ah waa yëkkati na ko xoolal ma mbër bi ba xam gaañuwul Seydina xoolal ma ko ba xam gaañuwul Seydina xoolal kanam gi eh ah, waay daa màndi tànk yi taxawatul astafurlaa tànk yi taxawatul. nga door ko ba pare di ko di ko kii mooy yéen nga dóor ko mu wàcc awaay ah mbaru jéeri daan na waay jéeri bi paas Seydina moo daan muy bébé liiru tey sama mbër daan ah jéeri sa mbër ñu door ko mu wàcc wee pep kawote na dafa kawote il ne tient pas debout il ne tient pas debout il a perdu ses réflexes il a perdu ses réflexes il n'en peut plus ndeysaan jóg na